bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil habli al matin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmiddin bokk jullit yi asalaamaaleykum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 defal nu kii man ci aw fanam defal nu kii man ci ak wéram ba lépp lum naalal sëriñ Tuubaa fas ko ko yéene liggéey lépp mu sotti coleet te lépp naanu ko moom di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal suñu bopp noonu taalibe sëriñ Tuubaa yépp waaye di ndokkeel nag jullit yépp ci at mu yees mi nu tàbbi génn nañ atum junni ak ñeenti téeméer rek ñeent fukk ak ñaar tàbbi ci nag atum junni ak ñeent téeméer ñeent fukk ak ñett 1443 moo tax ab jullit am at day jaax am at tàbbi rek mu yam fa du ci jële dara déedéet loolu day gàtt lool ab jullit saa ba am at tàbbee am at jeex am at tab war na war na am lu ca jànge lañ ci njëkka jànge mooy mankat kat atum lëmm wàññi ko ci li ma waroon a dund su fekkoon nëgëni daaw ñetti atal la desewoon ci àdduna jàppan léegi ñaari atal la fi dese su fekkoon nag daaw ñaari atal desoon ci àdduna jàpp nga kon mën na nga dese kon da nga yéeg kon sëg dund na ngi wàññi ko damay yéemu su ma gisee nit di feete feete anniversaire di ca békk di ca noos di ca xawaare waaye jàpp na ko daa xamul la xew waaye su xamul la daa war tiit moom daa war tiit yëg na atum lëm wàññi waat na ci lim doon a dund kon waroon ko yóbbee gën a farlu gën a góorgóorlu la la doon jar mu bécce daal mooy lépp at mépp mu def ko ci lu rafet te mu wóor ko ni suñu borom nangu na ko kon su mu jar bég te su waat du jar feetu nag nag da ko bàyyi ci loxol yàlla ndax ndax yàqu weesul ci dara ndax suñu borom dafa ku ku ku ci coobareem rek lay lay jëfe moo tax ña ko xam ko xamoon ragal ko ngir sëñ Mbàkke bi su muy gën a ragal yàlla ñëpp dëkke woon jooy daanaka xam yàlla rek xam sañ-sañ beeg jëfe gi ñuy jëfe coobareem nga xam ne yàlla digle lépp mang ca lamtale mu si yaa jege dara ba noppi dëkkee jooy rek ngir ragal yàlla ñoom dañoo xam yàlla moo tax kon ki ko xam eh, tiitaangeem tiitaange lay lay jiital ci mbégte nit ki war a xisaab boppam ba at mi jeexee ne waaw man at mi jeex ma ndax la ma yàlla digaloon def naa ko ma ndax la ma ci yàlla tere woon ba naa ko ma ndax rafetal naa ma ndax ñaawal naa topp ko topp ko topp boo ko seetee seet gis na nag lépp rafet na alhamdulilah eh, mooyoo ci yàlla lépp sellal nga ci jaam nga ci yàlla la nga mën lépp lépp rafet nga sant ca yàlla te yokk sa lu fexe ba at mii nga dëgmal mel ni mooma su fekkee gis nga ne ak ah, lépp a ñaawkat man kat def naa ci ma yàlla sàngam war naa ci sàcc naa ci jël naa ci alal jàmbur war def naa ci nangu nangu wax a wax ba gisaal lu bare ba loo def nga tuub na tuub gu sell récc ko fas yéene at mii di dégmal moom lu mel noonu doo ca dal mukk xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu kon da ngeen di xisaab seen bopp bala bala ngeen a xisaab loolu mooy xisaab sa bopp loolu da nga koy def at mu nekk di ko def weer wu nekk di ko def bis wu nekk guddi gu nekk bëccëg nekk mooy bëccëg boo yenn ba ngoon xisaabal bëccëg ba xool la ca rafet nga sant yàlla la ca la ca ñaaw nga tuub ko fanaanee guddi ba set nga xool guddi ga la ca def la ca rafet nga tuub ko la ca rafet nga sant ci yàlla ñaan mu nangul la ko noonu noonu la ab jul di xisaab bi boppam bala ñu ko xisaab kon jàpp ne kon altine ca la 1442 jeexoon talaata mooy bis bi njëkk ci 1443 kon terutem at mi ngi ci terutel weer wi kon fu tabaski fu ñu séentoo weeru të feeru ba feer wi feeñ rek mooy tabaski jaaxam tam xarit tàbbi na mooy at mi tàmbali na loolu tax ma ko leeral mooy dafa bari ñooñu dañu jàpp ne yow ma xasora dañuy jàpp ne bisu tam ci la at mi tàmbali det bisu tam xarit fekk na weer yi amagun am at mi amagun fukki fukki fukki fan bis bi ndaw ko ndaay di reer cere yi mooy juróom ñeenteelu fan ci at mi bu seetee di mooy fukkeelu fan bañ def ba xaasura lañ ko tuddee xaasura mooy fukkeel lay teg taasu a juróom-ñeent lay teg mooy mooy bisub reer yi xaasura fukkeel lay teg mooy bisu fukkeel kon fukkeelu fan la ci at mi kon bis bi njëkk ci weer bi mooy bis bi njëkk ci at mi kon talaata bi weesu kon mooy mooy moo tolloog bu doon ci weer tubaab bi nga ne mooy premier janvier xaasura tolloog 10 janvier Achoura nag li tax mu gën caa fees mooy dafa bari yu ci xew yu ci xew histoire yu laal diine yu ci xew moo tax Achoura gën cee fees mooy bis boobu muy bisu fukkeel bi Sëriñ Tuubaa mi ngi koy leeral ci Masaalikul Jinaan wax ne bisub juróom-ñeenteel mooy bis bi ñuy defar reer yi bis bu si fukkeel bee ko gën fukkeel bi moo gën juróom-ñeent bi donte ñaar yëpp am ngëneel wala wattafaqu fi fadli ashuraa wattafaqu ñëpp dëppoo nañ borom xam yëpp dëppoo nañ ci ne bisu fukkeel bi bi donte ñaar yëpp nag lañ bëgg ko leen woor ñaar yëpp boo ko manee woor moo gën moo tax man li kaw nii aksar minhu ajra fa asbitan sawma sawmal jame dahra mooy li tax mu gën ko mooy da ko ëpp yool mooy bisu fukkeel dafa ëpp yool bisu juróom-ñeent bi daane waaye nag na nga saxale ñaar yëpp ñoom ñaar yëpp war leen war ndax war leen bu ci ne am na ngëneel bu dee xaasoraam yun da ko daa ba noppi digle ñu woor ko bu tey juróom-ñeente bi nag moom dafa yéene woon ne su déwén su ma fekkee déwén dinaa ko woor far yàlla dogal fekk fekk déwén kon yéene woon na ko suñu wax daal di tudd nag yenn yi nga xam ne yuñ ci sopp la ci di ko def ci bis boobu bisu fukkeel bi wa athbatu ashyaa fihi tunqalu an sayyidil anaami faltastamilu saxal nañ ay yëf yooyu ni nga ko toxalee ci ngën ji mi def sallallahu alayhi wasallam mooy lépp kon ci yonte la la jóge sawmun salaatun silatun wa sadaqatun taqlimu zafurin kuxlu iyaadatul maridi zawru aalimi wa masfu min saalimi qiraatul ixlaasi alfan wa thabat tawsiuna alal ayal bay wafat nee na ci sopp na ci ko def mooy woor ko taamu nañ ko ko woor ak ku ci julli ñeenti raka bu ñu ko jàng ci fatiha raka bu ci nekk fatiha ak fukki lixlaas ak juróom ñeent raka raka bu na fatiha ak fukki lixlaas ak juróom ci yor yor bi sopp nañ ko ca jokkuk bokk sopp nañ ko ko sangu ca nga mel ni lool lool farata sopp nañ ko ca saraxe sopp nañ ko ca lewi say wex sopp nañ ko ca tusngalu sopp nañ ko ca seeti ku wéradi sopp nañ nga siyaare ci boroom xam-xam sopp nañ nga raay ca bopp jéem bu doon ab jullit sopp nañ ci jàng junni lexlaas sopp nañ ci itam yaata sag njaboot ci lekk ak naan mooy tere ci sag njaboot muy fukki yëf ak ñaar Sëñ Tuubaa ci ne wal xuslu fiihi qiila yan fii saqama wal taw fiihi yadfau l ama tawsiuna ala tawsiuna fiihi ala l iyaali yasiduna risq bi idnil waali nee na sangu ca bis ba dafay dàq ak ràgg mooy dafay dàq ak wéradi tus ngelu ca dafay dàq ngumba day tax doo gumba doo silmaxa teral ca sag njaboot dafay dolli wërsëg kon lam la dañ ñëw nag ci jag jag li nga xam ne bi xaasora ah, da ko da ko yi ci xew xew-xew histoire yi ci xew summa li ashura ashyaun tura maxsuusatun bihi rawaha mandara fa fiihi taaba rabbuna ala abi basharihi aadama awalu nabi nee na xaasora am na ay yëf yuñ ca gis yuñ ko jagleel yoo xam ne ñi nat xam nettali nañ ko mooy ba ci njëkk mooy ci la jéggal aadama alayhi salaam yonte yàlla aadama aadama bàkkaar bu ñu ko jéggal mooy sunu borom da ko dugal aljanna ne ko yaatal naa la fi yaak sa soxna lekk leen naan leen bànneexu leen waaye nag garab sàngam bu leen ko laal bu leen ko jege sax leen wax wala taqaraba haadihi shajara fatakuna min alxaasirin bu leen jege garab gi su ngeen ko jegee da ngeen da ngeen da da ngeen da ngeen tooñ da perte mu de ñu lekk ca garab ga kon mooy nañ yàlla tax mu génn leen wàcc leen àdduna su ma wax ne wa asa aadamu rabbahu faxaba summa tabaa rabbahu fataba alayhi wa hada mooy googee moyoon nag sumbam mi ngi ko jégal ci bisu Ashura mu teg ne wastawati safinatul maaluma fihi alal juudi yi mustaqima yonte yàlla noox lu ci nekk xisa bu gudd gudd la wax ne bu ñu jëloon xisa ba képp dana doy dana émission doomul yemul du ñàkk ay jamono ñu ñëw ci xeeti xeeti xisas yooyu nuux dafa woote aw nitam at yu yàgg kenn wuyuwu ko mu ne suñu daal bay boo alak xeet wi ndax duñ gëm yàlla mbukk te boo leen fa bàyyee maa dañuy gën a àll ko te luñ jurit noon ni ñoom lay mel moom te dañ réer sa jaam yóddu loo ibaad ko wala ilaa fajin kafaara te bu ñuy ñuy jurit ay kàccoor dong la ñu doon kon bay boo alak leen rek ci la sama digal nag ne nga defar gaal mooy defar gaal yéefar yi di ko reetaan di ko xas di ko yëjji mu sax ci ndigal yàlla ba gaal ga noppi sun bam nekkoo ko jël loo bëgg mu wéy jël ci aw jiwu dugal ci gaal gi ñi la gëm nañ dugg soo bëggee ginaar ni am wutal peeru ginaar dugal ci gaal gi wutal peeru jaan dugal ci gaal gi wutal peeru lu ne rek mu dugal ci gaal gi ngir mu nekk jiwu ndax àdduna day tukki booba lu lu ñu yóbbaaliwul rek lu ci loolu day day day faat day jeex ci àdduna mucc lu ne jiw su doon daa tàmbalee nag ballal ndox ci suuf si di sotti ndox ci kaw asamaan xëy na anisnel fonluka bi yu na wax ina fii sa ja amruna wa faara tannuuru fasluk fiha fiha min min kulli zawjin min kulli zawjin isnayni mooy lu nekk per wa ahlaka illa man sabaqa alayhi xawlu minhum wala tuxaatibni fi alladina zalamu innahum muxraqun am na ci doom joo xam ne ci yëfar la bokk dafa ci ñe alku la bokk ne ko saa boo duggee ci gaal gi nag ba yamoo ba toog ak yàg ku la gëm nanga wax ne alhamdulilah li na jaanaa mi na xamisaam ya yow sunu yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom musal ci kàccoor yi tooñkat yi danga nga wax ne yow sunu yàlla nag nu wàcce ansil musal mbaat kon xëy mun si li yàlla wàcc ci wàccuwaay bu barkeel ndax yaay ngeen ji ñiy wàccee aw xodda yàlla amru wa sabr alal juudi waxiila bu'dan lil xaw zaalimiin nee na sunu ba nee gaal gi nag dem dem jaar ci ndox mi ba teeri ca barab bu ñuy wax al juudi yi ñoom ñu mucc lu dugg ca dugg ca jagaal ga lu nekkal ko nee na bis ba gaal ga teer nag ca jóodi yi dafa dajoon bés bii di ma ashura loolu suñu tubaab wax ci bayit woowu mu tekki na wa fiihi falqu baxrihi li muusa wa hakada wulida fiihi isa Moussa sunu moom da koy yónni ci banu Israil wooteeloo loo ko Firawna boobu moo fi nekkoon di buur bu yilif àdduna ba di yéefar bu bon ba doon woote ak uluhiyya di wax ne mooy yàlla sunu ba na wax yu nañ Moussa gannaaw boo xam ne digal na moo Firawna Firawna bañ ba ba ba sax ñu mu concours ak ñoom ñoom fekk ñoom seeni jamono njabar lañ gëmoon woo jabarkat ndax Moussa dafa def kiimaan mu dajal jabar yi ngir ñu concours ak Moussa Moussa am lam jóge fa yàlla lam yor fa yàlla jóge ñoom nag jabar képp lañ def bañ concours musaa gañe leen ñooñan jabar yan daal di gëm xam ne lii moom du mbirum yàlla ñu daal di gëm Moussa ca saas daal koy jébal seen bopp firaw na mer nag ne yéen ñëpp daa leen rey te suma wax yi Moussa nekkoon kon na nga jóg guddi te jël yoonu géej gi ansi bi ibaadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan laa taxaafu darakan wala rabbana fatba'ahum firawnu bi junuudihi fa xasiyahum min ma xasiyahum wa adalla firawnu xawmahu ma hada kon ci bis boobu nag lañ ba nga ne dem na ba àgg ci géej gi geesu gis ne firawn ak mboolem ñu ngi ñëw jëm seen kaw suñ jox ko pexe ne ko yat bi yat bi nga dóor ko ci géej bu ngi dóoree rek góor gi daal géej gi daal di xar def ñaari xaaj mu sóobu ca moog ñoñam daw bi ne Musa Firawna daal ñëw ñëw topp leen ak nitam jaar fi musaa jar bi Moussa génnee ko nitam nag suñu borom taqalewaat ndox yi ñoom ñu kon ci la ko suñu xaaraloon xaraloon baxaru xalzum muy géej googu ci la yent yàlla Isaa judd it yent yàlla Isaa xam nga juddam ci la ci lañ jëlee at yi di ati ati ati e, li ñuy tudde ati tubaab yi ñoom ñoom ñoom 31 décembre la ñu wax ne ci la waa 24 décembre ci la ñu wax ne ci la Isaa judd ñoom waaye nag ci ati jant bi nag moom bisub xaasuura muy fukki fan ci bi samxel ci la yent yàlla Muusa ak Isa gane àdduna bu ko defee kon tayit ci la sun boom labal Firawna kon on ko toppee wa aslahna zama laaxirin wa anjaynaa Muusa woon ma ajmain ma suma suma axraqna laaxirin ba Moussa muccee ña ca dañoo lab kon labal gém labal Firawna itam akun itam ba tey ci bés biir di yoma Ashura la yonti yàlla Yunus itam ci la génn ca jënam wa mooy di sunu ko yónni ca aw xeet mu woo leen ci diine wuy wuñ ko kon demee ba xàddi mu dal di mer dem bàyyi leen tam ci ndigal la suñu borom dem ba àgg ci géej gu mu war a jéggi fekk fa genn gaal mu dugg ca ne ba ci digg ndox ma ndax lu ci nekk lu gudd la waaye damay tënk damay koy tënk rek ndax lu ci damay jël ci ab sol rek nettali ko ne ba ci digg ndox ma gis na gaal gi lim jël dafa ëpp daa a diig ñu ne ah kenn faatu kan moo gën mbooloo mi faatu kon nañ tegoo bant ko bant yi dal ñu wàcce kooku ci ndox mi dañu ci mujj ñu tegoo bant bant bi dal ci nañ ko defaat ñu defaat ko bant bi des waat dalaat ci moom mooy nañ ko defaat dafa ñetteelu mu dalaat ci moom ñu daal koy guutaambaay sànni ci ndox mi aw jën jóge feewu mag ñëw ne ko tarax wan na daal di nuur moom ci biir géej mu tàmbali tudd yàlla foofee ji tudd yàlla su ma xam wa inna yunus la min al mursalin ida baxa ila al fulki al mashhun fa saaham fa kaan min al mudhadin faltaqamahu al xur wa hum mulim fa lawla annahu kaana min al musabbihin la la bisa fii ban fii ban la mi yu penson bu doon sabal gam doon sabal ci biir jën wa ci jën wa lay sax ba kër bis penc taxaw bis penc di taxaw waaye nag fana basnaahu bil araa wa huwa saqiim wan banaa de sajaratin min yaqtiin la noonu sabal mooy laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin moo tax baat la la noonu sabal mooy laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu mina amul benn bërëb may yàlla tudd naa sax sell yoo sun borom man ci ci tooñkat yi laa bokk ca sun borom jox ndigal jën yi mu gëq ko ca tefes ga su ma daal fee saxal ak garab gu ami dégg ñi ne démb la ñi ne leen la ca garab googee la toog di karlu ba yaram bi del sawaan namel ndax ne yaram bi yëpp dafa rocc koon su ko defee na kon loolu la Sëñ Tuubaa di wax ne wa fiihi igraqun li firawna kada xuruju yunusa min al xuuti xuda ci lay sun borom jéggal Eh, ci la ko sumbam jéggal itam moom Yunusu moomu ci loolu mu defoon waaye ci la Yuusufa itam génn ci bënnam nga ko mm, bokkam ya tàbbaloon moom itam eh, dafa nekkoon ci biiri bokkam di doomi yaqub yaqub alayhi salaam bokk ci ñi gën néew ay at ci ay doomam waaye yaqub yonent la xam na ni doom ji am na yàlla def ci moom xëy na dana doon yonte wala yu mel tax mu fonk ko lool taf ko ci boppam bëgg ko lool ba yeneen doom yi gis na seen bàyyikat moom Yuusufa la gën a fonk ci ñoom loolu tax tax ñu iñaane ko iñaane ko loolu dem def am pexe ba ànd ak mu yóbbu ko ci àll ba tàbbal ko ci ak bënn ngir rek eh, ndax uqtulu Yuusufa lañu waxoon aw itrahuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abiikum rey leen jus foofu mbaa ngeen sànni ko ci àll bu sori kon seen kon seen bàyyi yéen dong la gis bu fekkee yéen dong la gis ko lay mën a bëgg waaye wata kon bi di xamu saliyan da dafa mel bu ngeen ko defee ba noppi nag léegi ngeen wut doon doonal nag nit ñu baax def leen lii ba noppi nag wëlbati ngoon doon ñu baax wa xaala xaali min laa taqtulu yusufa wa alqahu fii ghaabatil jubb mooy ka ci gën moo ne yusufa bu leen ko rey kat nañ ko tàbbal ci bënd gi rek yàlla taqitu du sayyaara in kuntum faa'iliin falamma dahabu bihi wajmau ay yeccaandu fi xayaabatil jubbi bañ dajee ñu ñëpp nag ci tabal ko ci bënn ñu dëppoo ci daal koy tabal ci ak bënn bala ca xew xew ca jëgg ga fa jaaroon for ko yëpp lu guddee gudd loo xam ne du fi xaj waaye suñu tubaab bi mu tudd Yuusuf alkarim baatu alkarim la tudd moom la tax mu tudd alkarim mooy xadis yu ñu saa waxoon ne innal karim abnal karim ibnil karim ibnil karim yusuf abna yaqub abni ishaq abni ibrahima alayhi salaatu wasalaam ma yusufa day yonent di sëtu ay baayam yépp ak imaam di yonent yusuf dooni yaqub yaqub yonent la yaqub di doomi ismail di doomi ishaq ba ishaq yonent la ishaq doomi ibrahima ibrahima yonent la moo dama ne ko tedd doomi ko tedd doomi ko tedd doomi ko tedd moo te sunu baay bi nga koy tudd karim baatu fii fii kasa xuruj yusuf karim baatu karim boobu loolu la ci dig la junj min jubbihi maanaam ci la mucc ca bënnam googee wa fii aydan sallama xalilahu min naari fa salima yonte yàlla euh, ibrahim itam ci la ko sun ba musal ca bënn ga ko noonu ya tàbbaloon moom it ab yontel bu yàlla yónnee mu ñëw fekk ay nit di jaamu xiram xaala afa taabuduun min dunillahi ma laa yanfaakum shay'an wala yadurrukum uffin lakum lima taabuduun min dunillah mu xas leen ndax da ngeen di jaamu lu dul yàlla loo xam ne amul leen njariñ amul leen lor mbas waaye yéen ak li ngeen di jaamu te yàlla te te ci lu yàlla afala taqiluun xanaa du ngeen am xel qaalu xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin ñun waaye lakk leen ko waaye dimbale leen seen yàlla yi loolu na day defee ndax yàlla moo daan dimbale bu ñu ba yàlla ñu di ko dimbale nag <laughs> loolu day mel xamuñu lañ wax wansuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi su ma xul naa yaa nooru ko nii badan wasalaam ala ibrahima dañ ko tàbbal ci sawara moytu lu gudd a gudd dox na ci diggante bi lu ñu mënta nettali ñu ko tàbbale nga seen ko ci sawar sawar yu bérëx bérëx waaye lëkkut dara jotu ko waa araado bi kay tam fa jaax na lax sëriñ kon kon tër nañ seen pexe yàlla nag naax saayal seen pexe moomee pertal leen ni ko noonu yonent yàlla Idris alayhi salaam ci la ko sunu yëkkati yóbbu ko asamaan Idris faatuwut fii ci kaw suuf kenn mun la ne fiyee bàmmeelam waaye sunu ma da ko yëkkati yóbbu asamaan foofu la faatoo walat ko fi kitaab Idris innahu kaana siddiqan nabiyya wa rafaanaahu makaanan aliyya makaanan aliyyan mooy loolu ni ko noonu yonent yàlla Isaa it ba tey kenn mun la ni fiyee bàmmeelam yahud yi dañ eh, gaa yi wax ne banu wax ne dañ ko rey waaye moom weddi na ko ci alxuraan ne déedéet waxalu waxawli ma inna xatal masiiha isa maryama rasuulullaahi wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walaakin shubbiha lahum nee na eh, eh, eh, li ñuy wax naan rey nañ xiisa xiisan mariam ne déedéet reyuñ ko sële ko waaye dañ leen nirooleel keneen kooka lañu ñu rey waaye moom suñu borom da ko yëkkati yóbbu asamaan ko waaye li wéer man maa ko yëkkati yóbbu asamaan ñaar yooyu nga xam ne Idris dañ ko yëkkati yóbbu asamaan xisaay yu bugg asamaan bu ci nekk lam dajal mooy bisub Ashura Ibrahima weesu léegi it ba tey bis ba ko sunu ba musal ci sawanam bisu yow ma Ashura la loolu Sëriñ Tuubaa ne wa fiihi raf'u dhil ula Idrisa wa raf'u ruuhihi taqi Isa loolu nag xëy na dañu bañ mu gudd waaye bëggoon nañu indi xisa sa lu leeral leeral jëmi jëmi xisaa jàpp ak ak faatoom ak la ca aju xanaa tënk rek euh, banu Israel dañ ko dañ ko fexeel dañ ko fexeel moom xisaa biñ xamee ne que tey bu tey dana dem kër diw sàngam ànd ak saxaabam ki ñuy wax yaxawutaa nga xam ne moo doonoon kilifa ak yahud yi joo jamono yabal kenn ci ay gaayam ñu di ko tudde atitayus ci mu dem fekk isa fi mu nekk génne ko ngir ñu rey ko ba mu duggee ci néeg ba rek yoon suma dal di yëkkati isa yóbbu ko dal di wëlbati at at at loyu suma kooku mu yabaloon mu soppi ko jox ko jëmmee isa ba mel ne la ba mu génne ñu dal di koy rey euh, am ñu wax ne itam ba ko ñaaree benn xisa ñaar bi ndax dafa wutee ñenn ñi dañuy ne dañ ko boole kenn ko koy garde ci loo xam ne yëgu ko xanaa moo tax waxtu nekk maa ko koy sirwaye daal di ko topp fu mu jëm xisaa dal di ci ka aw doj doj wu kawe suñu doon dal ko jëlee ci doj yóbbu ko asamaan su ma daal di wël jël nag xar kanam Isaa melu ko na Isaa jox ko nag raqi boobu ñu ko booleeloon kooku ñu daal ñu daal koy rey bañ ko rey ma nga naan du ma Isaa du ma Isaa waaye faale ñu rey rek ndax jëmmi Isaa la yor ba ko ñetteel euh, ñu wax ne benn waay bu ñu wax ba euh, bu xam da doon da doon wootee ne moom ci waa ci ci ci nit Isa la bokk alayhi salaam waaye ab nafiq la du woon dëgg ñu dem ci yahud yi tegtal leen fi ngi saa nekk ba yahud ba ñëwee nag ngir ngir ngir ngir jàpp ko suñu doon daal ko jox melokaanu Isa ñu ray ko suñu boobu yëkkati ko moom ba ko ñeenteel ba tey ci wax yi ñu ne bañ ko bëggee jàpp Isa alayhi salaam ànd ak fukki ci ay nitam ci leen Isa wax ne ànd ak kan ceen mooy jënd na ci ñu jox ko sama melokaan ngir ñu rey ko am ko taxaw ne ko xanaa man suñu boom daal di ko jox jox ko koy melokaanu Isa ñu génne ko daal di koy rey suñu boom yëkkati Isa yóbbu asamaan kon yëpp ay am na ci jaay wax kon dañu tax foofu incha allah xam naa ba benn incha ci seen émission fardul ayni kon ñaan gi neen jox rek moom lañ ñoon léegi ci ci ci waxtaan wi mooy sàbbaal googu su doon def ci jë biir jën wa képp ku ne ci jafe-jafe di ko wax suñu la ci génn laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin képp ku ne ci jafe-jafe ay xat-xat yu mën a doon te di ko saxoo di ko di ko sàbbaal di ko sikkar su ma daan la génne ci yooyu incha allahu taala hadis bi nga xam ne moom la ñuy eh, joxe tey it hadis la boo xam ne moom it dafa dafay dafay dafay làmboo mm, bis bi di Ashura Abdullah ibn Abbas moo solo wax ne yém saas na dafa ne xiina saama xiina saama rasul sallam yowma waa amar bi siyaami yi ndax mbax wolof yi rek ndax mu ndax mu bañ a gudd ne bi bi yén saas wooree Ashura dig la ñu woor ko ñu ne ko yaa rasulullah bis bii kat bis la bu màgg bu yahut yi doon màggal ak di ko ak ak nasaraan yi mooy bisu bisu bisu juróom-ñeenteel mu ne kon nag sa at mii di ñëw su fekkee dinaa ko war yàlla dogal nag at ma laata muy saat yoon saa sanam génn àdduna gannaaw lu mu yéen woon a war la kon ñu xam ne kon lu ñu war a war la kon ñu taxaw jox leen di incha allah ci benn seen émission seen ñaan liggéey ci ñun yàlla ko defal dëppale ko lu ñu gënal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.